Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. tëll di tëll di football di tëb di dal di paase ne mu doori di la xool mais say nga nit bu ñuy créer ay fen mais li ci gën graaw sax mooy euh, lii nii wane na à quel point ñi ñu jiite lañu ñu dangereux ak la ñu nekk ay nit yu ay tout petit Euh, tout petite personne tey jii sénégalais yi ku doon laax-laaxee sax di sa jiix jaaxee lépp leer na ni la ay fenkat ñoo ñu jiite ay manipulateurs ay nit ñoo xam ne ils sont prêts à tout moo tax bi dinaa ko sànq naa leen euh, bi bi bi bi bi bi euh, le père de la nation almuntaxaa yal na fi yàgg te wér bi mu jógee di dox jàmm képp ku meroon sax da ngaa war a bàyyi sa mer képp ku mënoon a yàq sax da waroon a noppi te jëmmam ji rek tax mais comme que da ngeen a jugoon pour wan ko ni yaa ngi defar ci suuf ñun ñu ngi yàq ci kaw far yàlla toroxal leen amul benn Sénégalais même ñi bañ sax Ousmane Sonko tey dañoo tëddaale ak jéppi aji Sarr mi nga xamante si nii ma tuuma ci moom benn xeetu yërmande sama dëgg rek laay wax maa fi ëpp yërmande la surtout ci jigéen mais ay kàcc ay nit dee yu bëri dee comprendre nga nga ñëwaat parce que aussi day am benn côté buñ ko nangul mooy elle est ku ko xool kanam yi xam ne elle est traumatisée dëmm yi ñoo ko wër dëmm yi moom téye nañ ko ne buñ ko bàyyi bu buñ ko bàyyee coow day am léegi dëmm yi dañoo ñëw boof ci kawam donc quand la vois tu sais tu sais que ne cette fille nekkatu fi tu vois même même suy wax ñu dagg ko sax dans son regard tu sens que ni c'est vide elle a peur elle est taxul ma yërëm ko de taxul ma yërëm ko parce que yëfu dëmmam yi tax na on a 17 morts mais nangul naa ko ni dañoo toog ci diggu bopp bi donc moom pour moom bu ñëwee muuru xaw ma lu mu ndëpp ci nopp yi mais su ñëwee muuru toog nii rek sénégal yi seen sensibilité day day wàcc bu ko defee ñu mën a ñu mën leen a nax li ci gën a garaaw mooy waa leeral waa leeral nee ñooy dañuy muus muus lu annoncé affaire bi jël ay heure di ñu forcé aji daa baax aji daa yaru aji fi ñu ko yaree aji moo gën fii aji daa aji daa kepp ndara faynam aji patati patata yooyu yëpp nee nañ ñu pour adoucir affaire bi la pommade bi pour déwuñu ko ubbi suñu sens yi euh, ñu am benn certaine euh, sensibilité ci aj yi ak mbaaxam ak histoire am ñuy jox nag liñ tudd woon bomb ñoom waa waa leeral mooy nag ñépp toog nañ di xool waa leeral ñuy jox ay témoignage patati patata quelque chose boo xam ne c'est opposé l'opposé de nit ñu décrire ci aji saar l'opposé de fi mu jaar ci dakaar ñi ko jot a xam fi ñu jaar a jot ak moom ñi ko ñi ko xamoon jege ko xam amoon na ay far amoon na benn gel bu waxtaan ne su ngeen bëggee xam aji lu muy saf laaj leen ko Sidi Mbaye Sidi Sidi Ahmed kim ñu bëgg présenté tey naan sama xarit la ñu ay nanta lañ nit ñëwee naan la sama nijaay la ci man <laughs> sama xam nga xam nga am na gel bu ñu ko waxoon ak ñeneen ñu nekkoon ci marché yi jaaykatu téléphone yi jaaykatu fëgg jaay yi jaaykatu fonde yi jaaykatu pataas yi ñëpp wax nañ seen wax ba noppi parce que wax nañ ñeen xam ci ndaw si tey jii nag ñu dem bon c'est c'est tout à leur honneur ah, ay mbokkam aussi ñu jéem naa naay sal wax lu parce que aussi affaire mbokk dëgg la mais li ci gën a garaaw mooy euh, euh, nu mu tudd euh, waa leeral nee na ñooy danoo ay en communication sensibilité sénégalais yi da ngay dawal tuuti jox maam yi ñu wax jox mag yi ñu wax nga wut ay kii après bu ko defee ils solo seen sens yi day ubbeeku ci nangam sàngam ba pare nag ñuy doo ko joxe ñoom liñ tudde bombe mais ku xool ndaw si tey tu as mal tu as mal quelque part man su ma la wax benn affaire amoon naa nag yërmande parce que yàlla dafa dem man jigéen moom wax dëgg yàlla am naa ci moom yërmande amoon naa yërmande ci benn xale bu ñu këf xam nga dafa mel ne exemple bi ah dafa mel ne kenn ci ñoom yëg ne damay watu ji fenn mu yëg ne fii laay watoo ñu yëg ko kenn si ñoom yëg ko léegi ñu xool ki may wat bi ñu ko yëgee te bëgg maa gaañ ñu xool ki may wat ñu ne ko bu fi euh, ni daf ñëwee di watu si dañoo bëgg nga ni moo sàcc say tondeuse dañoo bëgg nga ni ah ah da doon sàcc karaw yi mu si doon fekk pour liggéey leen dañoo bëgg nga ni ah dafa nangam sa sàngam wax ko borom watkat bi affaire bi nag laa leen wax de pour ñun ñëpp xamee nañ ko noonu mais comme dañuy waxtaan rek. pour bu ko defee yaa ngi dégg le fekk dama doon dem ci watkat bi loolu dootul nekk une évidence ñëpp a koy xam parce que dama doon dem ci watkat bi léegi liñ Sénégalais yépp war a jàpp te mooy l'essentiel mooy est-ce que gëm ngeen ni damaa sàcc tondeuse jàmbur bi ak karaw yi ma fekk wala xam ngeen li ngeen mën a xam rek mooy doon naa dem ci watkat bi bu fekkee doon naa dem ci watkat bi loolu du problème parce que sama bëgg-bëgg bopp la may dem ci watkat bi ñëpp xamee ko noonu léegi nag bu fekkee am na samay noon yoo xam ne dañoo bëggoon yàq sama koñ ci ci sama der ci koñ bi ñu ne watkat bi yokk ci lii waxal nangam waxal nangam bu ko defee ñun sax duñ ko mën a porter plante wala dañ mën a yàq daram ci koñ bi loolu lañ def loo yi saar loolu jàppe naa que ñun ñëpp xam nañ ko du ñu xale yu ndaw lu mu ndaw ndaw am nañ tuuti xel mais dañ koy waxtaan rek suñu biir e-, exemple bi moo leen di joxe xam nañ aji saar fii euh, euh, président Ousmane ko demee di di di defee massage fa lay liggéeyee ñu ne ah yëg ko léegi tey boo déggee wax ji ah ci waxu gel bi doon wax te ma leen fàttali amatuma ci moom benn yërmande moom dafa dàq teesu complot teesu euh, oto yi ko jël si dañ xam ñan la teesu ñi ko bindal compte yi ñi ko jëndal ñi ko bindal plainte bi avant viol bi teesu avocat yi mu doon gis bien avant tout ça ñu ko ci jox ay conseil ak ñeneen ñi ci doon wax ñeneen ak Birame mi ci waxoon ya un mois moom tey ci discours tayam loolu yëpp da koo yi léegi daal daa bëgg génne ci bopp Sénégalais yi comme quoi que ni amul woon beneen démarche bu dul fee yi ma leen di tegal te fee yi ñëpp xam nañ que ni am na lu ko précédé am na am na am na lu xew avant am na gisante am na toog ak ay net am na ah li occasion la léegi liñ wan a xam ba xam ko mooy ñooñu ñoo ne ko defal nangam ak sàngam comme xam nga diw fa lay maase woo dañoo bëgg nga def nangam ak sàngam loolu mooy problème bi du leneen est-ce que dafa dem maase wu ji ñun ñëpp d'accord nañ ko yëg nañ ko xam nañ ko du suñu problème. loolu bu ñu àggee ci jugement de valeur bu leen neexee comme neex nga ni ah waru fa woon dem waaye kër kër yaa ko xam sa interprétation bopp la mais ñun li ñu intéressé ñun Sénégal yi te suñu suñu suñu euh, suñu suñu téere yi tëgg ko suñu constitution suñu loi tënk ko mooy est-ce que waa ji ñii jàkkaarloog yéen jàppaleen ay xaar li ñu leen wax da ngeen koy gëm mooy waa ji daa dugg ci benn kër yor ñaari fetal violé benn gel boo xamante si nii mujj bi moo yoroon xaalis di corrompre beneen commenceuse bi moo ko doon wax génnal ñu violé ma moo doon snap di ci yor xaalis jamono jooju kenn xamul fu mu ko jëlee di foo di bëggee di ree da noppi dem di toog ak waa APR di ànd ak waa APR di seeti ay avocat APR léegi bu nit jàkkaarloog ñëwee ci yéen toog ak yéen pour waxtaan ak yéen ci loolu kon kooku respecté wu parce que ki la respecté wul mooy ki jàpp ne mën na la manipuler n'est-ce pas ki jàppe que yow te une chose boo xam ne bu ñëwee avec son cerveau day ñëw rek nax la parce que yow amoo cerveau donc dans tout ça lu ñu ciy jàng mooy xam nañ ka ni président doon na fa dem xam nañ ka ni am na ay adversaires yu yëg ne président doon na fa dem ñu ne naka lañ mën a créer loolu nag mooy le mot complot moo tax jëm kaw jëm suuf le mot complot kenn mënu ko génnee ci centre wax bi. centre wax bi wiiri wiiri jaari ndaar yi la moo complot mooy début bi mooy fin bi te nag dañoo bëgg a dindi suñu attention ci dañoo bëgg dindi suñu suñu suñu concentration comme quoi que ni le mot complot boobu tey moo indi 17 morts boo leen ko fàtte de. bu buñ sañoon suba buñ xëyee ñun ñëpp waxi Adji Sarr ak déclaration déclaration bi la ñu jii ñëpp mbetteel la ñu am ci waxu Adji Sarr bi mais li ñu bëgg ngeen fàtte ko mooy ñu xëy suba yéen ñëpp ngeen fàttee wax 17 morts yi fàttee wax milice armée bi fàttee wax nervi yi fàttee wax des enfants yu nekkoon seen ay balcon ñu tiire leen toj seeni bopp ñoom loolu lañ bëgg ngeen fàtte ko loolu lañ bëgg ngeen fàtte ko ndax kii maase na ma ndax maase déedéet ñun on s'en fout de ba waxu viol moom kenn sañatu ko wax Sénégal mooy nit ñaa ngi nii toog collègue yaa ngi toog commenceuse yi ngi toog ndaw si mi ngi toog te yow déggal nañ la sa antécédent nit ñi wax nañ fi nga jaar yépp wax nañ ci ci sa antécédent nga ñëw nañu yow moomu noonu mu ñàkk crédibilité boobu bu ñàkk histoire euh, ak réputation bu baax yaa war a jàkkaarloo ñun wax ñu ñu gëm la sur parole. ay fen yoo xam ni même ku crédible même ndaw soo xam ne dafa crédible su ñëwoon ne kii damaa fekk fii ci watu sama co-master ci watu sama collègue yi ci biir kër gi violé ma fii nit koo xam si ni nee première premier jour mu la gis la ne la yii kon mënumaa dem te laalu ma la première jour premier jour la la gis rek daat ne foog ma laal la yow nga yaakaar na mooy maas foog ma dóor la premier jour mu gis la te nee nga ci première jour boobu def na ay investigation ci mais yow la kan yow yow yow yow la kan ba kooku noonu ci premier jour boobu muy ñëw foofu musul a gis def na bien bien avant boobu noonu def na investigation ci yow xam na fi nga dëkk xam na sa tour xam na yow jour boobu yow yaa fay nekk te nee nga mi ngi lay doog a gis ci jour boobu noonu mi ngi lay doog gis te am na information yooyu yëpp ci yow te nee nga jour boobu daf laa gis mu nga maase ko rek mu ne foog ma tëddale yow moom déedéet du ma la bàyyi nga dem ñeneen ñi di woon foog ma tëddale te daf laa dévierger te ñun gis nañ ay jaaykatu pono ay jaaykatu cere ay jaaykatu kérosène ay jaaykatu peeton ay footballeur professionnel ay nappkatu ñëpp jis nañ leen ñu ne yow san dara pay ñu mën nañ koo dessiner il faut nga respecter Sénégalais yi boobaak la ñu lay suturaal sa jigéen nga am na kalaama boo xam ne waruñu faa waxee ak yow mais bul ñu jàppee des cons loolu boo taxee wax ak Sénégalais yi képp ku la joxoon tuuti crédibilité à partir de moment boobu dafa war a baale sa tour ne kii naa fekk la moo tax man ay affaire yërmande yi dama ko teggi sama diggante yow donc kooku noonu moo ñëw ne leen ci jour boobu noonu kooku di ma doog a gis amoon na information yépp ci man xam na fi ma dëkk xam na ni jour bii maa fay nekk xam na sama tur xam na sama lii kooku moo ñëw sama co-masseurs yi ñu ngi woon ci côté bi mu dévierge ma allahu akbar ay waa jile man meen lii mun ma koo nelawaale dama noonu du ma live mais lii mun ma koo nelawaale te génnewu ma ko il faut que nit nga nga bañ a respecter doomu aadama yi dëgg pour tenir leen histoire bu mel nii mais soo xoolee ndaw si tey lii yëpp dañ ko ko xam dicté ñu lu mu takk ci nopp yi ba pare on sent très bien que ni dañ koy dicté li muy wax et tu sens la peur tu sens que ni les gens ko tiim ay bureau lañu ci moom mais kii lii ñi kii ñii nii bu àndoon ak sagom ñii lay porter plainte ñi ko teg lii du Ousmane Sonko lay porter plainte parce que kii naqar bi muy dund guddi toll nii. ak pression bi muy dund guddim te ni mais ñi ko ko teg ñi ngi woon noonu taxaw ak ñi leen yónni mais c'est très grave il faut dem leen ngeen xoolaat vidéo ngeen regard ngeen xool le de la fii suñ ko daggee su demee ba wax benn toj toj ñu dagg ko allez allez ngeen xool soo regard mais elle paye les conséquences de ses actes moom moo engagé wu ci affaire boobu loolu mu engagé wu moo indi set morts ils essaient de nous faire croire que ni amul woon ñu ko yëg avant amul ñu ci liggéey avant amul bureau mu dem toog avant amul luñ ko ci dig avant amul ay kilifa yu ci dox avant amul ay avocat yu ko ci ko ci yëg avant elle essaie de nous faire croire que ni non après ma dem eh, patati patata jour boobu bi mu ñëwee d' accord yow daal kon da ngaa demoon créer les conditions pour que ñu violer le jour boobu noonu te que commencé bi yi àdduna bi yëpp yëg nañ ko moom yëgu ko kay ka fay liggéey ka la embauché moom yëgoo ko te nee nga tu lui fais confiance nit ku baax la waxoo ko ko sa commenceuse bi waxoo ko ko mais pare nga pour wax ko ay Sidi Ahmed ak ay waa membre APR mais ñi nga nekkal nii te nga wóolu leen dëkk ak ñoom waxoo leen que ni seen waa ji daf maa def nangam ak sàngam aji saar aji saar yaa ngi déconné nag yaa ngi bëtt pono yi aji saar yaa ngi peeral pono yi ku baax nan waxante dëgg nag ah non non non non non non non déedéet nit nag moom mën ngaa con bépp con mais waroo àgg ci niveau bi ba teggil sa tànk copain ah non ah non mais yow ak ñi la wër mais yan façon nit ngeen est-ce que yëg ngeen que ni Sénégal ci dëj la nekk est-ce que xam ngeen que ni sunu xalifatu al muntaxa mi ngi dox jàmm tànki jàmm ngir réew mi am jàmm est-ce que yëg ngeen que ni. maanaam mbir mi kenn waru koo tudd tudd turam bu sell boobu di ko boole ci mbir mi mais njaboote gum njaboote sénégalais ak yërëm gum yërëm sénégalais ak bakkan yu muy bañ mu rot tax na mu jël kàddoom di di di ko ci àddu ngir mbir mi ngir mbir mi calmé ngeen dewaat ñeen neen yokku ci ay fen yoo xam ni xale yu ndaw yi sax tey dañoo tëddiwaale képp ku tëddi tey da ngaa tëddiwaale ridicule bi nekk ci aji Sarr ak maître El Hadj ak ak ak ñi leen yónni ak ñi toog fële daan fexe leen fexe leen rek ba mu wax ne ñun bokkuñu ci na ko wax de na wax que ne ñun ko woon eh fexeel ba ci discours bi na tudd que ni kenn kenn yabalu ma na waat kan mooy waat yow yaay waat yow bul de ko ne barke bul waat waaye yow pour ñoom plan de communication bi mooy naka lañ mën a euh, changer tendance bi vu que ni Ousmane Sonko est sorti glorieux de tout ça il faut message ba leen euh, Dior Diagne waxoon day dellu si waat nan casser son image parce que là il est en train de prendre son envol. il est en il est en train de prendre son envol il a gagné il faut que même suñu dul dem projet il faut que ñu damm tànk yi ba sympathie bi mu am nii ba ba nga xamante si nii manifestation bu waree amaat sax crédibilité am day wàññeeku donc nañ yónni Adji Sarr parce que bëggoon nañ mu njëkk a wax bu njëkk bu njëkk lañ bëggoon mu njëkk a wax comme gars yi dañ leen kar ñu reculer waat léegi cette fois ci ñu ne comme am na euh, avantage sénégal yi. Euh, euh, ils sont avec lui essayons de casser son image message boobu ma ngay dellu siwaat bu leen fàtte message Dior Diagne bi te bu leen fàtte aussi euh, waa leeral boobu nan ñu wax yan relation lañ am waa APR ay Dior Diagne ak euh, beneen gars bi xaw daam na na kër a kër kan ci ñoom moo ndayale kan ak kan yan relation lañ am waa yi nañ ñu nañ ñu leeral seen diggante ak leeral point net boobu bëgg nañu leeral ñu ko waaye gars yi respecté leen Sénégal yi des gens sont morts su ngeen di def ay mbir ay tooxi doona ba am am ay bakkan ci rot mais rus leen Sénégal parce que seen sortie bii nii mën naa taalaat réew mi ku du commencé woon giif day gën day commencé mer Sénégalais yi ñu ngi commencé woon giif mais léegi dañoo commencé woon mer ndax biñ ci déggee Cheikh al al Muntaxa suñ kenn munu koo booleeg mer lu mel noonu parce que mbégte la bu ñu jugee ba al Muntaxa impliqué wu de manière flagrante ci suñu ay mbir pour la ko mais mënut mënatuñoo mer suñu xel day dal. mais yéen mbaamu xaraam yi se lii nii mi ngi commencé waat yëkkati mer bi gars yi commencé woon dëfal yërëm leen Sénégal y a de morts. Mais ne pensez pas que nous allons oublier ça. Vous avez tué plus de 17 personnes. Et on doit en parler. On doit, on doit écrire ce livre histoire comme quoi que vous avez tué 17 personnes. Et on doit écrire que vous, avez, vous aviez une milice armée et que cette milice marchait à côté de la police. Ah non, non, non, non, non. Les vrais bails sont là. N'essayez pas de divertir, de faire diversion. Euh, Euh, aux Sénégalais. Parlons de la réalité des choses. Moi, vous avez tué 17 personnes. Vous avez des milices armées et ces milices armées-là marché à côté de la police. Il faut ngeen wax ci aale kàlla gi te ngeen bàyyi seen tappale yi ngeen dem jëli ab Adji Sarr Adji Sarr munul saltel deru jigéen ñi parce que jigéenu Sénégal ku ne xam na ni du lii du lii moo koy représenté jigéenu Sénégal boo dee seetlu problème bi ñi ci gën a engagé gën koo naqarlu ay jigéen lañu mais nag société bu parfaite amul fenn foo dem am na ay brebis galeuses foo dem am na ay nit yoo xam ne elles sont capables de tout donc on va pas dire que ni yàq na deru jigéen ñi yàqul Papa Ndiaye deram bu mësul baax boobu la gën a yàq mais ndax ñu naan ñu aji yar nañ ko fii aji dem fi yéen yi laaj leen uude yi laaj leen apprenti kaar yi laaj leen euh, footballeur na footballkatu nawetaan yi laaj leen rappeurs yi laaj leen euh, journalistes yi laaj leen ñoom Kaal yi ak ñoom Tamsir dem leen ngeen laaj leen Adji Sarr waaye témoignage yi génn na ci internet bi su ko baax bàyyi la ñu ngeen def ñëpp sénégalais ñoo commencé woon di yërëm ak di ko di ko di ko di ko euh, suturaal. comprendre nga di xool jëmm ji ndax jigéen la ndax sénégalais aussi lu mu dee dee am na certaine euh, yërmande ak benn worma bu mu am ci jigéen mais jigéen bu ngeen demee ba di ko yërëm yii di am jour bi ngeen nekkee ci dëj ci diggu dëj bi ngeen nekk moor yi tey ji beneen booy bi Chérif euh, Chérif Mané tey la dee te am na yeneen malade yu tëdd ci hôpitaux yi jamono ji Cheikh Mountakha génn commencé dëfal xol yi ak dalal xal yi ngeen yónni Adji Sarr mu ñëw di wax des choses à dormir debout mbir yoo xam ne xel mënu ko nangu mais yéen si vous dites que vous respectez le Sénégal wala da ngeen di apaiser wala vous voulez fair euh, une un dialogue pour que affaire yi calmer wala da ngeen def discours euh, euh, pour apaiser mais vous mentez vous mentez c'était juste pour faire semblant mais dans la réalité du terrain gis ngeen ni tey jii ni sorti Adji Sarr bi vous êtes derrière tout ça vous êtes derrière tout ça il n'y a pas de respect amul leen benn yërmande ci Sénégal amul leen benn respect ci sénégal yi parce que il faut ngeen jàppaleen vraiment ay mouton pour ñëw indi seen clown boobu mu toog ñu koy dicter de trucs euh, dans l'oreille à muy wax ay waxi dof de choses yoo xamante si ni am xaar sax boo ko respecté war nga ko rusa wax yooyu premier jour mu gis ma après mu ni ma no yow ku ma la yow mënuma laa gis da nga yaakaar noonu lay yombe naa la bàyyi doon nga dem ay doomaram ngeen mais c'est même pas le langage de man même même man je ferai jamais des choses comme ça <laughs> c'est même pas le langage d'une personne même un malade bu ñëwee fekk la ci benn endroit nga am noo mel elle va il va prendre ton numéro vu que ni personnalité la peut-être il va jouer de ça il va prendre ton numéro il va essayer de mais du la violer même benn nit bu ñëwoon. mu gis la ci ab salon mu bardé la wala ni nga mel neex ko il va te donner ton numéro son numéro ou prendre ton numéro mais il va pas venir te violer fu ay nit mais come on ne nigga come on man Adji Sarr teggil sa tànk bàyyil cere ji ngay tuur yaa ngi déggoon ne kooku bu demee ba nga xam ni am na ci yow ay yëg-yëg mais du nekkul sax ci foofu lay def ak yow lu muy def ak yow il va prendre ton numéro la moindre des choses mooy di ngeen am benn contact à l'extérieur ngeen dajee su la neexee ngeen dajee de. Euh, Euh, tëdd biti taal baaxle fu leen neex ngeen daje fa foo xam ne kenn kenn bu yëg comme amatul ci yow nee nga amul ci yow sawo ñu waxante dëgg mais ma gis le première jour nga marché ma ma war a jug dem na la noo taxawal taxawal nga yaakaar noonu lay yombe doo demee noonu ñëwuma rek pour lii kase il faut nga ma violé la nga ni non tonton ma xawoo loolu xamoo loolu yow kanaa <laughs> Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. <laughs> ok nga ni xamoo loolu bu ma dévierge xawma loolu tonton tonton bi ni mu tëddal ba du génn ci kër gi te toogal il faut ma <laughs> xam nga il faut ma violer la tey et ce même n'a pas pris ton numéro il t'a pas donné son numéro et et nee nga ay weeri weer déggoo ko gisu la et nee nga beneen yoon bi la ñëwaat ñëwaat rek ne la aywa tëddaatal ma violé waat la te yow entre temps yaa ngi doon laaj ki may violé kañ lay ñëw te nee nga da doon métti ah nee nga nee nga mënutoo woon bi ñu la bindal te nee nga yaa ko bind loolu nga ci doon wax je me sens sale je n'arrive plus à me regarder devant la glace patati patata te ñaata la au mais yow yaa daan toog naan sama violeur bi il vient kañ lay ñëw pour violer waa kii du ñëw di ko bàkkoo ci dëkk bi temps yi man maay man maay maasa diw et puis yow yaay toog sax di kontaan te bu kooku ñëwee kat yow yaay dàq ñeneen ñi pour mu violer la ay waay ndey sàmb ay waay ndey sàmb waa lii yéen ngeen yaakaar suba du tabaski est-ce que suba du tabaski ngeen yaakaar man loolu lii di lii suba du tabaski je pense mais non on dans un rêve il faut que ñu wax ma ka ni on est dans un rêve yàpp c'est au Sénégal quand au Sénégal tu vois xool cerveau yi am na fu mu àgg quand soo xoolee ñun ni ñuy dundee. ñun ci Afrique sax boo xoolee ñun respecté nañ ñu ci dañuy raisonné ak ni ñuy dundee am nañ tuuti xel quand mais au Sénégal vingt et unième siècle ci kanamu nit ñëpp lañ toog raconté ñu lii nii ñu toog ñun di ko waxtaanee di ci dindi ay mbalaanu mbalaanu kiiraay député yi di ciy wax débat di ci am journaliste yi di yëm investigation sur une histoire comme ça barkeem maam Cheikh borom daaru yéen ñëpp dañoo war a dagg seen salaire dañoo dañoo dañoo war a punir dañoo war a punir ñun sénégalais danoo war a dagg suñu salaire cinquante pour cent dañoo war a punir euh, deux mois yi au Sénégal on est en de parler de ça on est en de parler de ça au Sénégal au vingt et unième siècle ñun ñu jàkkaarloo benn gel léegi nag xam nañ que ni Sénégal yi xam nañ li xew léegi bu ñu xoolantee des yeux dans les yeux on saura ni ay vampires ont vu benn porte ils ont sauté sur la porte Ils ont vu une occasion, ils ont sauté sur l'occasion. dañu am benn adversaire bu leen jaaxal buñ jiiñ sàcc plusieurs fois sàccul ñu xool lañ bët amuñu dara ci moom far ñu yëkkan yi fii lay dem foofu la wax ji nekk lan moo leen di indigné yéen en tant que ay sénégalais des gens yi ngeen di fay seen xaalis ñuy jël seen gasoil di ci dem gratuitement ngeen leen di jox ay indemnité fu ñu ko bëggee ngeen leen jox laa euh, euh, toutes le euh, les conditions nécessaires fi ñu nekk yépp ci seen adduna ñoom seen i doom sax nangu ngeen seen condition gën seen condition doom mais da leen a jox loolu lépp pour ñu liggéeyal leen léegi yéen fi ngeen war a xalaate mooy ce sont ces gens ñoo gis ne un de leurs adversaires bu ñu mun mënta daaneel légalement ñu ne nañ xool dans sa vie privée parce que keroog dégg ngeen euh, président bi wax li mu wax ci procureur bi naka la ñuy def pour déglu ko naka la ñuy pour am ay information dans sa vie privée là on est sorti politique dañoo dem dugg ci domaine boo xam ne ñun ñëpp Sénégal ñoo ko war a ñaawlu mooy dem di lëñbët vie privée jàmbur sëyu jàmbur loolu noonu jàmbur ñoom ñoom seeni gal ñoom ci kaw ba ci gën a kaw seeni gal ak fan leen di iri xam nañ leen waxuñu si parce que c'est leur vie suñu gisuñu leen ñu jël xaalisu xalaa comprendre nga jox leen ñoo xam lañ leen di jox loolu waxuñu ko mais ci post yi leen jox ci loolu lañ leen di critiquer léegi yéen liñ bëgg ngeen def ko liñ bëgg ngeen jàpp ko mooy nit kooku noonu lañ dégg que ne day dem tel endroit mënoon na nekk salle de musculation mënoon na nekk euh, euh, bépp endroit ñu gis que ne day dem tel endroit léegi yéen li ngeen war a ñaawlu mooy comment ça se fait des gens gis na une personne day dem tel endroit ñoom au lieu que ñu dem liggéey ci dossier yi mu leen di képp sàcc gi nañ sàcc ñu dem liggéey moom aussi ci faayam en tant que. Euh, un député en tant que un homme politique côté bi nga xamante si nii loolu la séq ak Sénégalais au lieu que ñu dem liggéey foofu ñu ne noonu non fii muy dem nii xam nañ fa kenn kooku ñu fa xam nañ fexe ba ni ko fenalal diw tout est là est-ce que yéen da ngeen di d'accord ci ñu gis benn ndaw ah ne ko fenalal diw fenalal diw boobu est-ce que yéen da ngeen di cautionner affaire boobu noonu quel que soit alpha fenalal diw boobu décision boobu noonu moo ñëw indil tey 17 morts parce que bu fekkoon ka ni sax bu fekkoon ka ni sax ñoom ñaar dañoo gisante bëggante dem bëggante fu la neex ñu ànd am nañ ci droit ñaari magum jëmm bu la neexee bëggante amuñ ci amuñ ci problème mais tellement du loolu que ndaw si ñu utiliser sax il a elle a même pas le le numéro de cette personne c'est pour vous dire que cette personne ndaw soosu tollu ko fenn parce que bu dul loolu la moindre des choses bu nit koo mun tam muñ tey kon mënoo muñ jox ko sa numéro téléphone wala jël numéro téléphone am wut puce bu bees boo ko soxlaa ne ko nañ dajee Cotonou ngeen dajee Cotonou mais juste pour pour jox leen ay ay ay indice la meuf n'a même pas le, le numéro euh, euh, du président et le président n'a même pas son numéro ils na se sont jamais vus faneen fudul foofu noonu donc nit ku la impressionné ba nga xaw koo bëgg kay mais nañ waxante dëgg tu vas essayer de voir cette personne ailleurs ci endroit yi nga xamante ni personne na bu verra ngeen def lu leen bëgg def parce que fii aussi ku weet yow sa bàmmeel yow yàlla ñu duñu ay saints nous sommes juste des des des hommes et des femmes des pécheurs mën na gis jigéen bëgg ko jigéen mën na gis bëgg ko bëgguñu la ñuy seq ak moom yoonu nit nekku ci ñun la ak yàlla mais l' essentiel mooy bu ñu ñëwee suñu liggéey on fait notre travail on fait nos Euh, li ñu li ñu warloo ak askan bi dañ koy def li ñu warloo ak suñu famille dañ koy def après léegi est-ce qu'on est parfait loolu beneen histoire la mais ci liñ bëgg a wax mooy sur les yaa y a eu yu gisante seen biir dat ne benn jigéen fenal ñu ci diw loolu laa bëgg ngeen jàpp ko ñoom dañ ne benn kii fenal ñu ci diw tuddal nangam ak sangam waxal nangam ak sangam et kooku gel boobu noonu nga xamante si ni pigeon yi sax ñoo ko ëpp xel mu ñëw jàkkaarloog Sénégal yi ak Sénégal yi ni mu ñore daal leen. non fàtte leen l'histoire des personnes qui sont derrière fàtte leen les avocats yu ma demoon gis fàtte leen ñi ma bindal plainte bi fàtte leen biir euh, yi Birima ci toog na ci tele daf ni un mois avant nangam ak sangam xamoon na fi fàtte leen lépp luy niroog thèse de complot teg leen de côté gëm leen ma man euh, Zayda xaw ma nan mooy muy niroog yanante foo yanante boobu xaw ma Zayda añ nga xaw ma nan. astaghfirullah yi mu toog nii nee day muuru mais mais <laughs> mais non mais c'est grave mais c'est très grave les le barke ras dañ leen noonu dañuy dagg seen salaire deux mois yi dañ koo dagg soixante cinq pour cent mais ndaw si nee na toog muuru mais yow gis nga sa am na benn terme booy dégg lu jógee ci xol day ñëwaat ci xol billaahi ndaw si bu amoon tuuti dëgg lu muy wax dana vibrer ci seen sens yi bu amoon am na tuuti dëgg yéen ñi toog dana vibrer ci seen sens yi di ngeen sentir que ni am na ay grain de vérité qui sort su leen di wax mais absence d'émotion totale lépp lu ñu mën a liir mooy y a une parce que boo nekkul ci dëgg da ngay tiit. Zeyna Zaman <laughs> Zeyna yéen da ngeen am jot xool kii dem jindil indil ma tur bi di nga gis lu ñu gis mooy tiit parce que kuy tooñ doo nekk à l'aise kuy fen doo nekk à l'aise bu fekkoon que ne ndaw si am na tuuti dëgg lu muy wax billahi danga nga sentir une certaine émotion. dans sa voix dans son regard dans ses expressions euh, faciales di nga gis que ni am na dëgg bu may xeeñ parce que yow nitu dëgg nga mais kenn ci yéen moo jàkkaarloog ndaw si muy wax nga am benn sens bu jug taxaw nga am benn benn benn seetu yërmande buy jug ñépp dañ doon ciipatu muy toog di liir toog di déglu ay oreillette di kàcc di fen di contredire boppam mais boo àndut ak yàlla ngay fen yàlla dalay bàyyi seetaan comme ni ñu koy waxee rek il complotaire def luñ bëgg def ruse bu leen neex ñu ñëw yàlla ci lu ndaw yàlla fen loo leen ci kanamu sénégalais yi ci seen game ci seen xaalis bi nu def dëgg nañ ñu wax ñu ban relation lañu am ak leeral TV bu leen ko fàtte ñoom nan ñu wax ban lien lañ am ak waa leeral net la xoma leeral TV yi ma fenaloon ne damaa joxe ay ordre pour ñu taaj RFM leeral boobu noonu laa lay wax de depuis le début da ak ak reportage yu foo yëpp da leen xool dem leen ngeen xool leeral ban point yéen nag bu fekkee kan ni d'accord ngeen ni leeral da leen di fen da leen di manipuler bu fekkee xam ne lii taal réew mi leeral mu ngi ci joué rôle am bu fekkee demee na noonu te demu leen ngeen désabonné ci waa leeral wan leen kan ni ay fekk ngeen ànduñu ak yéen man xamatuma ci yéen dara à moins que ngeen bëgg ku leen leen demal mais rôle rôle bu mu joué ci dans cette histoire yéen teg ngeen seen bët bu fekkee ne da ngeen di dem abonné wu ci genre nit yu mel noonu. bàyyi ñu continuer di lekk ci yéen xaalis di am ay nombre de vue ci yéen ñi nga xam ne ñi ngi ñëw di leen fen ak di leen manipuler ak di jëf-jëf yoo xam ne mën naa taal seen réew man comprendre datuma leen à moins que ngeen gëm seen wax te defe naa képp ku seetlu seen taxawaay ci histoire bi xam nga ñoom la ñan te bëgg nañ ñoom aussi ñu leeralal ñu ñu leeralal ñu yan lien lañ am ak waa APR ñoom yan lien lañ am ak Dior Diagne ñoom kan moo ndayale kan ci ñoom bëgg nañ ñoom ñu leeralal ñu wax jooju ñooñu waa leeral ñuy fàttali que ni des journalistes intègres ak animateurs yu nekk biir leeral on a aucun problème avec vous on parle de de la direction ki doon des ordres on sait que ni si seen biir ay liggéey am na fa ay nit yu intègres qui font leur travail on les respecte mais dans de choses comme ça y aura des dommages collatéraux quand on dit la vérité quand on dit la vérité on de jaar ci digg bi donc faites des investigations sur leeral lan moo ko tax a jóg kan la ñuy àndal kan moo kan lañ xaritool kan lañ ndayaleel kan kan kan mooy kan dans tout ça et le pourquoi mu jël ay ay ay mu mu bàyyi fi euh, reportage yi nga xamante ne nii ci du du ci avantage wu euh, euh, Adji Sarr yëpp mu esquiver ko mu jël ay wax yoo xam si ni ay wax yu nekk avantage am la mu teg ko avant cette vidéo lan la ci jublu poser cette question à Leral TV ngir yàlla parce que man jàppe naa que ni cette démarche du lu baax. te dans cette histoire la Adji saar war na yee Sénégalais yu bëri parce que muy ku mënta doon muy journaliste muy artiste muy ku mënta doon képp ku ci dox mbir yoo xam ni mën naa mën naa taal Sénégal maanaam ci fen ak ci parparloo après gars yi war nañu xam yow ban position lañ war a jël ci yow. te pourtant am na ay journalistes yu ci dox ay doxu naafeq wax ci ay waxu naafeq taxaw ci télé bi wax ci ay waxu naafeq ñeneen ñi joué ci ay naafeq mu leer la ne xaalis bu chèque yu bëri wàcc na. xaalis yu bari wàcc na xaalis boobu ñen ñoo ko moom yéen ñii ñëw di naxaat yéen ko moom xool leen bu baax gaa yi game bu ñuy play nit bu la bëggee fen wala mu bëgg laa sànq wala mu bëgg laa yàqal yow war ngaa xam yow après ban taxawaay ngay am jëm ci nit kooku noonu mais encore une fois jëlaat leen seen temps ngeen xool nit yu bon yi leen jiite jamono ji nga xamee ni am on a sept morts am une milice armée embauchée par l'État ñu xam ci kër yi ñu doon dem di di di seen siège ak ñu topp leen ba ñu dugg ci kër ay ministre ay ministre yu ñu dénk enseignement supérieur nga gis ay nervi yor seen i mboole di dugg kër ministre yooyu posez-vous les vraies questions indignez-vous là où il y a lieu de s'indigner les amis jàppe leen que ni on a di 17 morts jàppe leen que ni le père de la nation jug na ci ndax yërëm yërmande gu mu am ci Sénégalais yi jug pour apaiser jamono gi mu jugee pour apaiser semaine boobu nga xam ne ñëpp ñu naan cette semaine va être décisive ci la ñoo ñooñu génnaat def mbir mu mel nii génnee saleté bu mel nii génnee fen yu mel nii ñëw tegaat ko ci kanamu Sénégalais yi. waaw ban réaction ngeen war a am dans tout ça. yéen instant boobu dans tout ça léegi ban yëg-yëg ngeen ci war a am lan moo war a nekk seen comportement ci nit ñooñu noonu ban bët ngeen war a xool nit ñooñu noonu hélas duul boobu taxaw ak deqam bi di fen taxaw nii xam nga mu leer la kii Sénégalais yi boo leen doon laaj guddi ñu toll nii kan ngeen gën a jéppi moom lay doon et il se croit intéressant il se croit drôle parce que les gens rient quand il fait ses conneries il il pense être intéressant alors que ni nit ñi kenn nawloo kenn bëggut mu nekk sa papa kenn bëggut mu nekk sa nijaay réew mi yépp ab xaj lañ ko jàppe mais pourtant lijo mal bu leen di jaawale intelligence ak jàng école nit mën na jàng ba am ay diplôme nekk avocat juge wala lu mënta doon mais c'est un idiot les diplômes l'intelligence n'a rien à n'a rien à rien à voir ak dem jàng benn corps de métier mën ngaa nekk le meilleur soudeur métallique mais dans la vraie vie nga nekk un idiot il faut pas ngeen am complexe nit parce que il est tel wala il est tel il est tel parce que mën ngaa jàng ba jaar parce que intelligence ak mbaax nekkul ci ay jàng comprendre nga parce que jàng tey jii ni am na yoo xamante ne si tu prends le temps nga jox ko temps bi mu laaj ak concentration bi mu laaj di nga dem mën ko bu dee làkk la di nga ko mën bu dee lii ay équation la boo ko joxee temps di nga dem mën ko loolu cerveau yépp boo doful yàlla may na la ko soo demee nga jël sa temps di nga mën c'est pas ça même si aussi intelligence laal na ko mais c'est pas ça l'intelligence donc ki dem jàngi am yooyu noonu ëppul xel ki toog ci daara ji jàng alxuraan ëppul xel ki nga xam ne demul ci daara ji mais la vie jàngal na ko mooy les expériences de la vie toog ak nit ñi toog ak say waajur dem dikkaat am ay problème jugaat yenn kooku expérience boobu mën na la jox une certaine intelligence donc ce n'est pas parce que il s'appelle maître ce n'est pas parce que mu ngi dem ci turbi ci tribunaux yi que c'est une personne intelligente c'est un idiot il faut voir tous les avocats du Sénégal kenn kese moo ci am réputation bi mu am ni mooy maître El Hadj Diouf y a personne qui le prend au sérieux et même les avocats se disent que ni c'est une honte d'avoir nit bu mel ni muy wuyoo turu avocat donc lui c'est c'est c'est c'est le bouffon du roi moom la yoon ni mu dem ci télé di tëb di excité wu tëb di dal di wax waxi dof à chaque fois qu'il parle nit yi génnewaat ay waxam mu wute ay waxi démbam ñoo xam ni c'est la merde donc tey cette personne la moo toogoon la il faisait le mec intéressant alors que ni euh, ki mu toogal une jot boo xamante si ni moo ko yées ñoom ñaar ñu toog pour tromper seize million de sénégalais pour toucher seen ay émotions nee nañ dañuy dawal benn reportage beneen reportage bu ko nit ñi tàgg bu ko defee les gars vont voir son vrai visage mais son vrai visage dem leen ngeen laaj ko. ñoom ñoom ñoom Tamsir ak ñoom xaali ñun dégg nañ ci lépp ak ñoom Torres dem leen ngeen laaj son vrai visage sénégalais yi dofuñu xam nañ ki ngeen ñu présenté kan la muur leen ko kol bu jógee màkka du n'allez pas faire d'elle par hasard leeral ont pris ça ils ont monté pendant plus de je sais pas combien de temps pour faire monter l'audience ils ont bàyyi commentaire yi kii di daw documentaire du daw pour préparer les sénégalais pour ñu am benn sympathie baisse seen garde avant ñu leen di jox seen vidéo bi ñu foogoon que ni c'est une bombe c'est pas une bombe wala si c'est une bombe ça s'est retourné contre vous yàlla wax na ko bu ngeen comploté ba pare man maay ñuulal seen complot yéen mécréants yi vous êtes des mécréants donc réaction sénégalais yi dal na xel ça veut dire que ni les gens sont prêts maintenant bañ a suivre rek ay information yi ñëw nii les gens dañuy xool le vrai du faux def seen ay calcul seen ay propre analyse seetlu xool contradiction yi parce que aussi PV mënul nekk lépp ñëw nekk à décharge de Ousmane nekk à charge de Adji Sarr contradiction yi bu ñëwee nekk à décharge de de de de des enquêteurs de Khady Ndiaye et nekk à charge de de de de de Adji Sarr tout ne peut pas être à charge de Adji Sarr par hasard réfléchissez un peu à chaque fois qu'il y contradiction ci moom la jëm à chaque fois qu'il y mensonge ci moom la jëm à chaque fois qu'il y a de complot des gens qu'on connaît des des des des des des des avocats yu ñu ciy tudd des avocats yu yénte ay plainte tout ça day delluwaat moom Mais il y a un moment donné, il faut se poser aussi les vraies questions. Pourquoi Pourquoi les qui toujours c'est du négatif, c'est des mensonges, c'est des contradictions, mais ce n'est pas un hasard. C'est parce que parfois, à force de bëgg tànkam lu dëgg dem di wuti leneen da ngay dem sax ba mais la vérité elle est là on a même plus besoin dem ci ab juge pour mu wan ñu la vérité parce que tout Sénégalais s'est déjà fait son idée comme quoi que ni ça c'est monté Ils ont sauté sur une occasion, ils ont demandé à une fille de mentir sur une personne dans le seul but de salir cette personne, voir s'il y a possibilité l'emprisonner. Ils savent maintenant que l'emprisonner sur un dossier aussi merdique que, que, que celui-là est impossible. Ils se sont dit, salissons cette personne. Mentons à bloc allons dire que dafa dugal baaraamam fii dafa jaay ibaado fii fen fii la mu wax jabaram wax na ma lii alors que comme ça les Sénégalais vont changer d'opinion sur cette personne essayons de le saluer parce que là il est sorti glorieux de cette histoire et que instant bi nii Sénégal yi gën nañ ko bëgg et que il est en de prendre son élan donc faisons tout pour casser cet élan nañ génn fenn nañ génn aggraver affaire yi nañ génn mën na kuy dëggal suñu thèse du viol tout en même eux ils n'y croient parce que c'est un mensonge Voilà où nous en maintenant Maintenant, les dés sont jetés. À chacun sa conscience. Man, ci ma jot a gis les Sénégalais ont compris leur jeu. Les Sénégalais déjà savent que ces gens-là sont prêts encore pour talat dëkk bi Parce que jamono bi xalif bi di jug di dox dox jàmm ñoom ñu ngi ci xëpp kaani jamono ji nga xamante si ni on on continue de compter nos morts ñoom ñu ngi ñëwaat di ci xëpp kaani je pense que wax buñ ci waxaat rek échange bi rek la. di d'idée bi mais nekkatul pour convaincre kenn parce que nit ñi xamal nañ seen bopp ba noppi donc voilà mu ngi noonu <laughs> affaire yi leer na si amutuma sax lu ba ciy teg man moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla instant ngi nii affaire bi xool dafa dem ba toll ma foo xam ne si degré ridicule bi ridicule bi mu ridicule sax foo ko naa ne du ma si waat di wax Adji parce que ça fait dix waxuñu ay waxam tàlluñu ko On était en de parler des morts, la réalité, la vraie réalité. On était en de, de construire notre démocratie. Le président était obligé de nous écouter. Même si, même s'il faisait semblant, mais il était obligé. Dans les gens Sénégal, day matatu. Mais d'un coup, pousse pour nous baisser d'un ton. Man pour man, c'est ce qu'on continuer parce qu'on était en train de rétablir xam ni moo gën fenu aji saar yi élan boobu ñu jëloon man pour man sax duñ delluwaat ci ay waxu duñ tuddaat sax turu turu turu idiot boobu noonu parce que enjeu yi ñu commencé woon di waxtaane temps yi internet bi je pense que c'était ça l'essentiel de parler de nos fondamentaux de justice bi ñu war a tegaat ci yoon de calendrier électoral bi ñu war a respecter de corruption bi dox de milice armée yi fi amoon di rey ay nit des 17 morts des commanditaires je pense qu'on était parti pour régler nos vrais problèmes mais encore une fois lan la mooy les les gars de les gars du du de des des des sombres ténèbres nga xam ne ci lu bon rek la ñuy dox ci lu ñaaw ci lu yàq kese la ñuy dox seen loxo yi takk na deret sacrifice bu nga fi gis élection bu jublee bu jutoo ngeen xale yi feeñ xam ngeen ne ñoo nekk ci di di réer xam ngeen ne ñoo nekk ci ginnaaw xërëm moo xërëm def nañ ko fétiche boo xalaat def nañ ko ñooñu bu ñëwul woon ci lii da bu ñëwee ci lii du ñu bett buñ ko deful woon la ñuy bett mais sincèrement pour dire vrai pour man on était parti ci yeneen élan ci yeneen waxtaan et ça c'est ce qui faisait la grandeur du Sénégal mooy tu voyais une jeunesse de de quatorze ans quinze ans dix-neuf ans vingt-deux ans vingt-huit ans parler de démocratie parler de justice parler de justice équitable parler d'une démocratie bu bu bu bu bu bu am doole et c'était des jeunes qui menaient de débats comme ça loolu moo nekkoon fi Sénégal toll guddi ñu toll nii loolu loolu moo loolu moo defoon le charme loolu moo defoon la puissance xam nga du Sénégal guddi ñu toll nii léegi maintenant xoolal ils nous traînent encore dans les fin fonds de leur bassesse de merde une journée de perdu et demain ils vont titrer titrer pour xool ndax mën nañoo manipuler sénégal yi seen yenn journaux yi ils vont titrer des choses on va encore perdre de l'énergie alors qu'on était dans l'essentiel le président bi ñu doon ignorer dem na ba mujjee doo mur déglu ñu même bu ñu déggul déglu nañu par force comprendre nga mais on on était en train de lui poser lu war a tax démocratie dellu si waat Sénégal lu war a tax mbiri jaar yoon on était de lui mettre la pression sur Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont fait faux bon au calife pour ñëw yokk de l'huile sur le feu. Voilà où nous en sommes. Prenez acte. tey ñu wan ñii que seen manipulation yi ne passe ne ne ne passeront pas. que seen manque de de sensibilité bi ngeen am ci Sénégal bi nekk ci dëkk. ngeen dem ngeen dem ngeen dem euh, ngembaat seen fenkat bu mag boobu ci biir dëj bi pour mu ñëw yokkaat ci beneen paaka ci play ci play bi nous prenons acte et ñu ngi gën a xam kenn yenn façon sadi sadique lañ ko seqal ça doit être comportement wu bépp Sénégal ci mbir mi nit ñi dañoo war a xam à quel point ces gens là lañ ko seqal à quel point ils sont mauvais à quel point ils sont mauvais loolu rek mooy li fi des mooy si biir dëj bi lañ ñu fekkaat bëgg a kayewaat bëgg indiwaat leneen ndax lan parce que pour rek politique seetal seen der taqal keneen ki gis nañ que ni il est sorti glorieux de cette de cette situation il faut que ñu taqal ko balaa muy gën a am plus de euh, de kii il faut ñu taqal ko il faut ñu fenn nañ génne Adji saar nan ko muur nan ko dicté muy wax Sénégalais ne sont pas dupes dem leen wutiwaat beneen bi c'est tombé à ndax yàlla moo nekk au contrôle nee na su ngeen defalee mécréants yi su ngeen defalee seen i ruse ba pare su ngeen ñëwee ma niilal ko. te ñun yàlla rek lañ yaakaar yàlla yàlla dolli sutura yàlla yàlla musal ñu ci ñii ñu jiite ñi ñu àndal ak ñi nekk seen ginnaaw surtout yàlla yàlla musal ñu ci ñooñu defal ñu sutura sàmmal ñu Sénégal musal ñu ci naafeq yi nii incha allah rabbi ba ñu mucc ci ñoom big up la famille c'était tout et euh, n'oubliez pas n'oubliez pas surtout parler des 17 morts parler des milices armées parler des commanditaires demande au président de respecter Euh, la demande du xalif demander au président de respecter les dix points yu ko nit ñi jox parler de l' essentiel surtout dañ leen bëgg a diver def diversion vous parlez de l' essentiel s'il vous plaît parlez des dix sept morts parlez des dix sept morts parlez de la milice armée parlez euh, de la milice armée qui qui qui patrouille à côté de surtout ak ay oto yoo xamante si ni oto wu état la parlez de ça surtout parlez de sa ne ñoom xam que ne ñun suñu ay priorité xam leen xam nañ ko ne ñoom nañ leen wan que ne suñu ay priorité xam nañ ko suñu ay priorité mooy on avance libérer Ousmane Tounkara il n'a rien d'un terroriste vous êtes tellement petit que da ngeen di dem di porter plainte ay ay ay braves sénégalais yu nekk à l'extérieur di liggéey di dundal seen njaboot au Sénégal di avancer la situation seul parce que àndu leen ak àndut ak seul parce que mu ngi joxe information yi leen dul enragé vous suñu tour ñun Sénégal ngeen dem porter ko plainte dans le seul but de mentir sur son, sur, sur, sur son dos, l'accuser de terroriste, tout en sachant que ce n'est pas un terroriste. De toute l'histoire, vous n'avez jamais vu un terroriste à visage découvert, assis euh, dans sa voiture, di joxe li si ñu une organisation secrète est-ce que une organisation secrète avec à la tête un gars comme ça et, et doit être, euh, prise au sérieux mais c'est pas sérieux tout ça et ils le c'est un gars boo xam ne pour yokk ci parfois Euh, il exagère dans sa manière de parler donc mais comme c'est une occasion et état bi dafa ñàkk fayda ils vont sauter sur l'occasion pour dem fenal ko ci état euh, américain yi euh, c'est c'est un terroriste il a dit ça on a entendu sur un vocal sur cette vidéo là il a fait des menaces patati patata dans le seul but da fayu seen mer bi ñu am ci moom donc soutenez Ousmane Tounkara bind leen fépp qu'il n'est pas un terroriste il mu leer et parlez de l'essentiel les amis partagez l'essentiel Adji Sarr réduire réduire leen ko par lu mu mérité mooy zéro moins zéro ak maître El Hadj Diouf réduire réduire leen leen par zéro partagez comme quoi on a 17 morts réclamez les commanditaires réclamez qui qui était la milice armée ak ñan ñoo leen embauché loolu la sénégalais yi bëgg a xam guddiñ toll nii et réclamer ça plutôt que ñu leen di def diversion ci yeneen yi bonne nuit à tout le monde dem ngeen tëddi guddi na Braquezeur. Voilà. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.